xale bi dama ko romb rek mu def ma effet bi may départ sax tayetuma ko man maa ngi naan sax xam naa kii peut-être xam nga dafa am fu ma ko xàmmee wala genre affaire yu demee noonu mais bi ma ñëwaatee toog wax ak xale bi xool ko booy ci laa xam ne c'est un coup de foudre te booy loolu musuma dal. léegi ngóor ma laaj la yow si jour bi nga fekk gol bi mu toog nga wax ak moom si même guddi bi nga dem seet ko kër loolu yow mun na de mon ami frère. man mi sax loolu laa jàppoon foog ni mooy genre jigéen ñooñu xam nga am liberté ñàkk kilifa mais tax ma koy jaay pare quoi xam nga rek yaa ma gën a xam mais après bi ma xoolaate affaire yi laa xam ne c'est une femme de valeur. allez <laughs> Ngor yow da nga nii quoi yow léegi yow ci compte faire quoi yow. non laaj ci compte faire quoi bu dee da koo bëgg comme ni nga koy waxee. bam jaral nga ñew tok fi di wax naan waaw c'est une femme de valeur patati patata dang koy tak wax jeex jigéen baax bo gisee bëgg ko ko wax ci jeex du non man nak may def ci ali mo bo mu ne def attention ci li ngay wax frustré nga sama rakk ji ah frustré ci lan yow da nga bëgg wax ne dafa am ay ci yow <laughs> yow da nga gaaw a yegg succès nag de yow ëppal nga de yow réglé woo yemoo mu naan def mosula nopp waxuma la loolu mais jigéen moo mel noonu waaw bu doo leen xasee nopp ñoom ba ñu xam ko même bu nekkee c'est pas réciproque yow boo jàllee ci leen def leen di touché donc dañ ko bàyyi xel rek et tout même si nag sincèrement je te souhaite d'être heureux et tout mais gel bi foog ma gis ko balaa ma joxe sama avis parce que instant bi góor bu expérimenté mooy wax yow te yow wàcc gem nga si bees bi boo teeyul dañ lay buddi guddi gi na àndaaleeg ca xabal ñu roofoo lu ma ci am jël yow xalaat nga ma présenté la sama gel man ah, léegi yow la moo la doon sa gel dama koo bi yow da fàtte ne amoo sago wala ngor sax ci jigéen yow <laughs> da nga fàtte ne amu nangu sama gel man mi yeeg sa da nga naan sama àq moo la mujjee dal ba taw ba ngor yow doo mën xalaat yow ami dala nopp léegi sama baay rek la ma jox comprendre. c'est lan ab xam yaa nekkoon fii ci kër gi naan man damay topp du di ko langal léegi. ah <laughs> xarit da nga mel ni da ngaa nopp ngóor de mel ni bool bi dafa tourné de. <laughs> yow sax parfois da ngay sa xel mi yow ku la yeewoon ci ay nar man damaa nopp góor gën ko gëm ngóor sama frère am na yenn bët yoo xam ne sax du ma ko xoolee hmm. mais dafa am yenn affaire yoo xam ne saa sa fait pas. gis nga xale góor yi dañoo tàmm bu ñu gisee jigéen nopp ko rek commencé fu ñu toog sama gel bi dafa toog dafa yem dafa lii comme si seen gel yee gën yeneen jigéen ñi loolu moom énervé moo tax mu jóg. xarit nag confirmation bi joxe nga ko yow dangaa nopp ngóor àdduna moo gudd tànk. Alima man mel ni yow bu ma gisee loo ma bëgg dama koy dem jël te ngóor bu ma ko soxla woon kay du ci jot yaa ngi may dégg. Hmm. maa wax ak yow. kon ba noonu. Hmm. <laughs> baax na. su fekkee loolu maa ngi jégal moom bul dem ndax li may bëgg a wax nii yéen ñaar la concerné bu fekkee ne dama leen a offensé maa ngi jégalu bu baax mais lenn laa la bëgg wax ami mooy yéen ñaar ñi gëw ma ne dina leen gën ci kaw suuf ni sax man c'est ma première fois jigéen gis ma bëgg ma man tamit ma bëgg ko c'est normal nak ma mais bu fekkente ni dama leen frustré comme ni ngeen ko waxee ba tey ngi jégalu. amul solo. xëy na bon ruus de. Ah. tamit. dëgg la ko def tamit mag ji. ko dëgg tamit. gars yi eh, sama mag la. ñoo bokk ndey baay. Ah. waaw du fen kër ga la nekk nag six heures du matin lay tëdd bu ne teg mi lay yeewu ma ne ko nag li ngay def ci kër gi xëyoo amum xëy di foo dara dañuy dem te grand place ba toog fa kafe gi ñuy def ci koor gi ak diwu mburu meeg bër bi mu ciy jàpp di joxe ci ndogu yi. mais Malo kii dama ko xamante ne. kanam bi ça me dit quelque chose quoi ci affaire u kebet yooyu noonu. non man kay sànq ba tey maa ngi koy kii boo woy sàpp si bi daa xoo. lay lay la yow boo yaa ngi nii kii la. boo yu am talent ngi nii. mais malheureusement nday sax. Eh, non wax loolu malheureusement lan wax loolu waaye. comme xaaral yéen fay. non fayuñ xam nga rek juste dañoo pause nii rek. non mais maa jot leen ñii seen carrière. Ah. moo gën a gàtt rasu abu. loolu <laughs> wax ah. non booy booy booy maa jot maa la ko. la kii sama mag la ñoo bokk ndey ak baay. di tedd ci kër ga mu indi ko fi ci grand place bi pour muy japp ci café ak ci ndogu yi ngeen ñew di ko mbalak ar dekk da de rafet bok lay yow la nga bëgg ci ki kii dong koy deglu tok ba ca kaw di cararar yi te xam ni kii yow ngóor rek lolu ngeewal day yëngu eh, mo nga noppee duyo ngor ki di duyo ki eh ngor dafa mbapat dafa liggey maaj nee xam to xam fa ngay fanaanee ko gën eh dafa leen dank gis na solution le solution ma ci lu wax deug la ki ak ngor compatible merci nanu laal ñu associé yëngal dëkk bi. mais rak kii li mu wax dëgg la de. loolu nga gis ñun ay géwél lan kenn mënu noo nax. Ah. nan ko ci boole toj réew mi. dëgg du neex. kon une deux trois quatre cinq six weer baa ngi may xool. woo xanaa ndom ba ba ba ba ba bi cukun pokun kiibin kiibin kaa. woy nga naan zee ko pàtte de ñongale jégale den. nga naan woo eh tarama ta ma tëcc ma tëcc ma ten. woo xoolal am na la fi xew tay ma wax la ko. yow waxal ñu dem sama pax si dibi dama xoolal woo eh, élèves yi bu ñu génnee récréation dañuy woo gane ko dof muus mu liw si liw liw eh, woo gis dafa am na lu fi xew tay ma wax la ko waxal ku jóge cib jàll yoro cib jàll ngay waaju baax ci ab jàll faaw nga jàll jàlli e eh, ngóor xoolal ordinational di mérite yow lan koy takkal laaj ma lu tax ngóor parce que tu es mérite yow lu bon ku la ko yii nag da laa xamul ngoor ngóor ku koy iñet ku ne walay du am biñat xoolal <laughs> Ah. bon je pense que mini cool hein. mhm. juste que dafa am ay une parce que on a sa oreille musicale quoi mhm. il faut ñu gën en même temps gam bi del fexe di tegu ci temps bi parce que des fois damay gis ne da ngay rawante gars yi mais yow daaneel bi dee ko xool parce que temps dafa am solo ci woykat bi da koy dimbali contre temps baaxul dégg nga ba pare waaw kon nag waaw yow tamit seen tàcc yi ah ngeen wàññi ko parce que tàcc yi bu bëree nit ñi duñ dégg li ah, woykat bi wax te woykat bi limi wax la nit ñi soxla. Mhm. kon dafa am solo ñuy dégg ay paroles voilà donc. non ils sont bons ñom pare trio bi dama leen don sétane non si si mais. non ils sont bon ils sont bon xamna da ngeen di def ben featuring après hein wa après da ngeen di def ben featuring rek mais. dina mm. melni wali bu mu soxla wé ay kon ah, kon link du yomb non link du yombé grand man doomu géwél la man gan nak bi sant parti mi ci tiajay la joxu ko mi ci dangoon goné malikuma sam sàmm nga. oui oui oui oui. abdel sama rakala déggal loolu. sama mag la. Ah, waaw oto ngewal dégg léeg la laaj. li ëpp solo mooy dolli. mais rakk moo tax ma def li lii. laajul wax ju bëri de. bu ñu yàq link bi nañ leen dem ñu def suñu réunion nañ leen dem. mais booy mat na nañ dem réunion ji nañ dem. da ah. ngay jàngat rek nañ dem. cekki dem kon urat gol yo ambiya urat gol gol gol gol urat gol yo ambiya urat gol gol gol urat gol yo eh Alioune Mbaye de Alioune Mbaye de de waaw Alioune Mbaye del naan del naan del naan ne eh, eh, eh, fils sama tur laa dama mel kay kay kay. léegi léegi léegi. ça va. Ah, dégg naa la booy nga naan booy daal di Aliou Mender waaye léegi yow lu xew. xam nga xam nga xam nga lu tax Aliou Mender c'est que booy bi moo am cas mun na sañse am feeling moom lenn rek moo ko des. baat bi rek baat bi. Ah, moo tax ma ne Aliou Mender <laughs> dama la bëgg dama la bëgg. moo tax ma tax ma wax lool mais dara mais kontaan naa kontaan naa trop. mais fils Ngor bon vraiment maa ngi lay féliciter. Mm. di la encourager. di conseil aussi parce que la musique du monde, il y a ngi euh, def li nga mm-hmm. et je pense que c'est mm-hmm. tu as le style et tu as aussi le talent. il faut avoir l'audace. Mm-hmm. et je pense que euh, mu ngi le coach inchallah la coacher incha bi def moy bu xëccoo kenn. affaire bi du yakalante du dara ku nek da nga jass sa parce que yaatu na ku nek mën am li nga ci wara am nga am ko ci ci sa et je pense que inshallah taala so ku ne ci yoon bi ma la gis yalla mën na defal sutura te sax du ma la ci bay ci carton yalla na la coaché. mais ma ngi dem kontaan naa ci jëw yi kontaan naa ci ah, jëw yi. ah doo ngay jaar rek da ngay jaar rek ñu ah, ah, ah waaw waaw yow da lay dama bëgg nga defal ko ko surprise. maman kan maman Adja sama yaay yow rek la bëgg. mais non attends c'est Doudou. mu ngi de moom de. mais il a vachement grandi. incha allah waaye màggu vache kay dëgg ah bon moom kay xamee ma ko sax. ah oui La fii mooy seen kër. waaw ah c'est ami fi. mais si biir moom kay. defal ñu ko surprise rek. waaw attends xaaral ma gaaw. mais xool balaa ngay def ñu Paw defal surprise. ah bon ah, ah ok. écoute yow ñëwal. écoute la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 70 ans. mais c'est très nice mais c'est pas. Eh. Elle écoute. écoute. écoute. Non, c'est pas écoute. Ah, du écoute. Elle court. Hein? De 7 hein? à 77. daw na de waaw daw na de jël lyrics ba la jël lyrics mais xaar xaar ma gars bi bii bii c'est un enfant. pardon pardon pardon c'est quoi c'est un enfant. waaw c'est tellement fort. Ah, c'est tellement fort l'amour est tellement fort. Mm. Mm. bon xaaral ma gaaral te ñëw. Mm. waaw waaw gaaral gaaral gaaral gaaral te ñëw. gaaral te eh? ñëw xam nga looy wàññi ngoyaan yi.